asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, te di leen euh, sant te di leen euh, ndokkeel te di leen jégalu ci li nga xamee ne moom la ñu nekkee ci fan yi yëpp te ngeen ànd ko ak man te li tax ñu di ko def mooy falaat son excellence le président Macky Sall de le 24 février ah ñu ngi tàmbalee nuyoo bi ci Serigne Mor Lo mi nga xamee ne moo jiite comité électoral bu Touba Darou Khoudoss ak bay Ibra Kane mi ak Talla Silla ak Soxna Astu Basel bu ma tuddee Soxna Astu tudd naa yéen jigéen yi ñëpp ndax xataay bi moo tax duma leen mën a tudd yéen ñëpp kenn ku ne ci turam waaye na ngeen xam ne maa ngi bàyyil xel ci yéen ñëpp ndax wax dëgg yàlla ni ñu ànd ci liggéey bi rafet na ah ba nu yegsi ci fii kon maa ngi leen di nuyu kenn ku ne te di leen jox seen wàccu aay maa ngi nuyu it ah, sama bokk yii nga xam ne ñoom laa dëkkal ci koñ bi di ci jiital Baye Mass Dieng ak Serigne Cheikh Touré mi Baye Malick Ba Serigne Cheikh Dieng ak l'ensemble de mag ñi nga xamee ne ñoo nekk fii ci koñ bi kon maa ngi leen di nuyu te di leen sant di nuyu it jigéen ñi nga xam ne ñoom la bokkal koñ bi ah kii nga xamee ne mooy soxna Cubba Sëy moo leen jiite muuma yu bari it ak euh, euh, mbootaayu jigéen yu baree bari ñëw nañ fi euh, quartier bëgg Bamba soxna Nabu Njaay ak soxna Sali ak ñim àndal ak Sëriñ Daam ñëw nañ fi ànd ak mbooloo mu takk kon ñu ngi leen di nuyu te di leen wax yegg si ngeen ci seen kër ci seen kër mbokk ah, ñu ngi nuyu aussi soxna Njaay ak soxna Yaasin Njaay jóge ca marché Guédé ak soxna Maada nekk fële ca bitugu Ba Jaañ ak ñi nga xam ne dañoo jóge Tindóodi ak ñi nga xam ne dañoo jóge Njaane ñoom ñëpp doona nit ñoo xam ne dañoo dëkkoon fii ci koñ bi noo ngi tàmbalee fii ci Kaolack dem ba Préfeignan dem ba Ziguinchor Bignona Sédhiou Kédougou Kolda Vélingara jóge fa dem ba Matam Podor ñëw ba Salvi ñëw Louga dem euh, Kébémer dem Ngaay dem Thiès Pout dem ba Dakar dellu si def Mbour def euh, Gossas def Fatick Kaolack Diourbel ñëwaat Touba bi nu defee loolu def ko ci weer ak genn wàll muy un mois quinze jours nu jàngat noonu ko président Macky Sall defoon ci njëlbeenam soxlay askan wi mosunoo dégg fenn foo xam ne kenn neenu fa émergence amul kenn neenu fa croissance amul xanaa kay lu ñuy wax kon mooy war nañ cee gën a gisaat suñu bopp war na war nañ ñoo dolli mbaa amaguñ ci lii wala amaguñ ci lee kon ñu ne moment bi kon nañ ko tuddee l'émergence mais l'émergence pour tous l'ensemble de ñi nga xamee ne ñoo créé mouvement bi ma jiite leen nenu nañu ko tuddee l'émergence pour tous ma def discours boobu bâtissé mouvement bi pour tous ba fii ci mois de juin bi du 2018 ñu dajee benn comité ne ah comme ay chef d'entreprise lañu ay promoteur lañu nanu accompagner président Macky Sall parce que gis nañ ne li nga xam ne dañ koy wax PSE muy le plan Sénégal émergent mooy li nga xamee ne moo gën a permettre nun immigré yi nga xam ne dañoo bëgg a delli Sénégal pour investir loolu mooy li nga xamee ne moo nu mën a accompagner plus rapidement pour nous participer à la réservation du chômage en particulier le chômage des jeunes euh, bi nu ko defee ñu bâtissé ko ànd ci ak i góor ak i jigéen foofee ca France ca Italie ca Espagne ba ñëw fii ci Sénégal bi nga xamee ne élection yi jub si na nu ñëw fii ci Touba fas ci yéene ànd ak comité bu Touba Darou Khoudoss ndax Touba gi fi leen di juddoo màgge fi yaroo fi te sunu objectif doon fexe ba président Macky Sall élection yii di 2019 mu wuutee ak élection yi nga xamee ne moo fi passé moo fi jàll ci ñetti at yii loola nu ñëw fekk si fi commission électorale bu Touba Darou Khoudoss ñu accueillir nu dalal nu nu ànd ak ñoom ci liggéey bu rafet bi ba nu yegg si ci tey jii kon nu wax ne objectif bi daal mooy bépp sénégalais boo xam ne da ngaa fas yéene liggéeyal sa réew fas yéene euh, participer à la résorption de chômage en particulier le chômage des jeunes nanga nga ñëw jàppale ñu ñu réélire le président Macky Sall de le 24 février pour mu mën a engagé pour émerger le Sénégal mais émerger ko pour tous. bi nga xamee ne mi ngi def le groupe consultatif bi mu doon def ci mois de janvier ci Paris noo nga fa woon teewoon fa waxtaan ak président mu boole woon ci. Euh, euh, investisseurs yi nga xamee ne ñoo ko accompagner woon pour ñu mën a xam nan la ñuy participer pour émerger et pour développer le Sénégal mu dolli ñu encourager ci lim na wax ne dana am taux boo xamee ne defee ti ay appel d'offres taux boobu dañ koy réserver les entrepreneurs locaux les Sénégalais yi nga xamee ne en particulier dañoo nekkoon la diaspora pour ñibbisi pour investir ci Sénégal ni ko chinois yi defee italiens yi defee ko ba seenum réew émerger tey loolu moo nu gën a encouragé waat ci ni nu àndee woon ak moom nu gën koo accéléré ba tax ma bàyyi lépp lu ma daan def France sama entreprise ma nga fa ma délégué ko sama doom pour ñëw def fi un mois et demi pour ànd ak Serigne Mor ñoom ñii pour que Mercida Macky Sall am taux boo xamee ne gagné élection yi ci Sénégal mais gagné ko ci Touba kon bu loolu jàllee da ngeen xam ne ñi ngeen fi gis ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kenn amu ci koo xamee ne du koo xamee ne dara ñoru ko lu mooy Sénégal émergé dara ñoru ko lu may Sénégal jëm ca kanam may ànd ak ñoom guddi ak bëccëg lu leen naqari ak lu leen neex musuma koo xam ndax doy naa leen doy goo xamee ne fu ma leen jëmloo daañu fa jëm ndokk bi nga xamee ne fi ma leen yóbbu ku mel ne ci président Macky Sall ndax wax dëgg yàlla ni ko soñ moor waxee léegi koo xam ne da ngay wër ab candidat defe naa boo gisee président Macky sal dootoo jëm feneen ndax candidat la te mat na ko sëkk ñu gis ci moom ab yar gis ci moom ab teggin gis ci moom bëgg Serigne Touba gis ci moom bëgg Sénégalais yi gis ci moom it doxalin woo xamee ne bu ko defee ñu may ko deuxième mandat ci sept ans yi mu fu defoon mu defaat yeneen cinq ans muy douze ans jàpp naa ne Sénégal dana ci gis boppam ndax lii mu fi def bi mu ko fi defee ñëw fi boo ba tey mën nañoo wax ne président yi mu fi fekkoon ak président yi nga xamee ne ñoo nekk ci Afrique gënu wër ak ñii muy xëccoo réew mi kenn koo xamee ne lii mu def Sénégal ci ñi fi jàll defoon nga ko fi ci président yi ko wër ci Afrique def na ko fi wala ñi muy xëccoo réew kenn koo xamee na ci man ngaa def lu toll ne lii mu namm te it yàlla dimbali ko ba ñi nga xamee ne ñoom lu war a ànd liggéey bi muy ay serviteurs ñu financé ko jox ko xaalis bi xaalis bi nekk fii moom mi wuti woon xaalis bi am projet yi defe naa ne kenn ku ko dàqa def liggéey bi amul ko nan ko jàppale mu def liggéey bi Sénégal gis ci seen bopp waa Touba gis seen bopp waa Touba Darou Khoudoss gi waa Foras waa quartier Bëgg Bamba waa Alieu waa Guédé ñëpp gis ci seen bopp kon sëriñ Mor noo ngi lay xamal ne noo ngi ànd ak yow ci liggéey bu mag bii nga xam ne moom la commission électorale bu Touba Darou Khoudoss sumb muy élection boo xam ne pour soo son excellence le président Macky Sall moo ko tax a jóg ñu fas yéene ci ànd ak yow ci condition yëpp nag bu mu ci mën di doon daanu ci ànd ay yow fas yéene liggéey ba nga xamee ne président Macky Sall ay résultats am dana gën résultat yoo xamee ne moom la daan am ci fan yii nu weesu wala ci at yii nu weesu noo ngi leen di xamal ne képp koo xamee ne bu Khadim Ndiaye jógee nga jóg Khadim Ndiaye lenn dong lay woote. wootewul lu may ñu dem le 24 février manko ànd Serigne Mor wax na ko ay car dana fi ñëw ay biis dana fi ñëw fu waay mën a nekk ak secteur boo mën a nekk bala ngaa fee jógee na nga ma jox say ak coordonnées jox ma sa numéro téléphone dana mobiliser ay car yoo xam ne dana la fekk fa nga nekk teg ci ay hôtesse yoo xamee ne ñu li ñu def lay doon jox ay prostituées yoo xam ne maanaam président Macky Sall moo cay nekk ñu wan leen ko wax leen ko ni ngeen koy war a choisir wax leen ko ni ngeen def ñi ci des wax leen ni ngeen di def enveloppe bi ba kenn ku ne bu demee dana wateel président Macky Sall wateel ko ci jàmm wateel ko ci yar ak i teggin wateel ko ci lépp loo xamee ne moom la santaane kon maanaam mën nañ ne lii ngeen di seen di ko gis mooy la fekk ca urne ba. dana ànd ak ñeneen yent yoo xam ne moom mi moo leen juróomeel kon na ngeen ko tànn lem ko def ko ci enveloppe bi te enveloppe bi bu leen ko kol bu ngeen ko defee ngeen daal di génn ca bitti ya ca des ngeen def ko nu leen neex daal di wàññiku dem seen kër duggaat ci oto yi ma la joxoon ngeen ñibbisi maa ngi sant di gërëm di waxa li nga xamee ne moom laa leen yàgg a wax képp koo xamee ne bëgg nga Sénégal bëgg nga sam réew bëgg nga say bopp na nga ñëw ànd ak ñun nu falaat président Macky Sall. ñu am ne dañu ko xam ne ñoo xam ne danañ jël kàddu ñu yeggale liggéey bi. waaw euh, man day comme ni ma leen ko daan waxee rek xanaa dafa fekk ne. Euh, Baye Fallou Macky Sall moom ku na sañ na koo tudd tur nag mooy Khadim Ndiaye maanaam fii ci Touba Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo jiite mouvement ba ñuy wax l'émergence pour tous.